Mami Niass doomu Moustapha Niass la moom ak aada bay bi ñoo daan lijjanti mbir yi pêche aada bay na ki ko doon protégé te nekkoon kilifa mooy cër Thierno Ndomba moo taxoon mu gudd tànk ci lu bari donc arnakat la fenkat la dóorkati jigéen la du ko te amul métier bu leer fexe na nag jaar jaar jaar ba dem takki Zeyna jaar fa mu war a jaar ñaan ko ñu may ko ko incha allah waaye dama leen di wax pour ëllëg bu ëllëg dara xewee xam leen ne du Viviane du Zeyna duulkat la rek bu réussir quelque chose ñëw def lu muy def takk xale bi Zeyna tamit dinaa ko comprendre que nit ku bëgg a sëy la toll na ci sëy bëgg na jëkkër muy dem mais mauvais choix la def te bala sey bi di takku red flag yëpp ñu fa manam lepp lu wara tass sey bi nuyo na ci ngoro gi xana kay dañ koy du moy rek avancer mais nak sey bu baxul lo avancer avancer di nga reculer di nga delu ginnaaw yeen yi nga xam ci da ngay di sey ak seen soxna te da ngay ci yek plaisir wala yeen yi nga xam da ngay di sey ak seen soxna daanaka ben 1 minute ñaari minute rek ngeen daanu garab gi yeen la yeen lañ ko andil bu ngeen ko day jël rek da fay traiter fajj leen ba ngeen yagg ci seen kaw soxna te du ngeen gaawa daanu andi leen benen produit ñi ñi nga xamne ci si seen awray dafa tuuti seen sexy di sew bu euh du ngeen ci am la ngeen bëgg ñu andi leen pomade bi ngeen seen pomade bi dang koy diw ci sa awro développement sexuel la daf koy yok bu fekke dafa sew daf koy reel bu fekke dafa gàttit daf koy gëna guddal muy pomade bi ngeen seen mu nekk lu baax momit am amul leen ko yéen ñi nga xamne da ngeen amé ak ndoxu siti andi na leen sun sase yu baax yi euh, sase yi yeen ko andil ñi nga xam ne dañoo am hémorroïde ak ndoxu siti parce que hémorroïde mën na dem ba jàpp góor ba tëleloo ko moo tax euh, yi ni jaay dañ ci am na it benn pompe boo xam ne si yéen ñi nga xam ne da ngeen di gaaw a daan wat koy pompe bu cinq minutes desee war a seeg seen soxna euh, pompe boobu yéen la yéen leen ko andil euh, mu nekk pompe boo xam si pompe bu efficace la moom bu baax la ku ko jël sa soxna daal xam naa ne soxna si moom dana kontaan ci guddi googu